waa man la madame Diop Aminta Sall maay coordinatrice projet RBTDS bi nga xam ne mi ngi lëkkale Sénégal ak Mauritanie. waaw jàppale googu li ko waral moo di ne réserve de biosphère transfrontière bi dañ am benn stratégie bu ñu naan stratégie de renforcement de capacité qui est un document parmi d' autres documents de la RBTDS euh, ci document yi RBTDS donc kon ci document stratégie boobu dañu gis na dañu war a jàppale groupement yi du jigéen ñi rek muy góor muy jigéen muy jeune muy mag. en formation renforcement de capacité ci euh, renforcement de capacité yooyu nag parce que dañ amoon beneen document bu ko génne yu bëri ñoo ci génn lu mel ne defar saabu ak eau de javel génnoon na ci loolu moom moo tax bi ñu fi ñëwee seet si waa Jama communauté Jama ay jamono yële ci ginnaaw waxoon ñu ne bëgg nañ session de renforcement de capacité boo xam ne mi ngi jublu ci mbirim defar saabu ak yeneen formation mais ci biir lañ defagum euh, loolu moo waral suñu ñëw fii tey comme ni ma ko waxee sànq dafa euh, am tamit ba beneen euh, yeneen activité bu ñu naan initiative génératrice de revenu maanaam ay activité yu ndaw yoo xam ne dina mën a tax jigéen ñi am weccet boo xam ne nii dinañ ko mën a yóbbu kër ga wala ñuy faj ci yenn soxla yu ndaw yi muy initiative génératrice de revenu boobu lii si la bokk lu mel ne saponification amoon na ay transformation céréale am na élevage am na aviculture am na maraichage mais ñi ngi commencé gum ci bii muy saponification pour mu mën a Euh, gunge jigéen ñi. waaw am gunge parce que euh, boo xoolee fii ci commune de Diama euh, ñu ngi fi jël trente personnes forme leen trente personne xam nañ ne ci lu toll ne population jaman matul lu bari mais dañuy jàpp rek ne ñi ñu doon tàggat fan yi ay formateur des formateur la ñuy doon dañuy dem former ci ñu ñuy fekk seeni gox ku ci nekk booy delloo fa nga jóge woon parce que formation bi ni ñu ko taxawale par zone lañ ko taxawale ku ci nekk boo delloo fa nga jógee nga jéem a xool nan ngay ànd sa jigéen ña fa nekk hmm. say dëkkandoo ngeen de formation bi te duñ leen bàyyi noonu dañuy fexe ba formatrice yi fi nekkoon doon leen jàppale xool dinañ xool dans ban euh, amin la ñuy fexe ba ñoom ñu ñëw jàppale waat leen ci formation yooyu ce qui veut dire que pareeguñu parce que équipement bàyyi nañ ko fi jëndoon nañ équipement vraiment pour formation bi amoon na ay emballage amoon na lépp li nga xam ne nit war na ko soxla pour formation am na fi yaakaar naa ne buñ ko booleek Euh, ñoom ñi nga xam ne formé nañ leen dinañ war a gën a mën a tasaare liñ fi jëlee ñaari fan yi. Hmm. asalaamaaleykum commune Diama maa ngi leen di nuyu di leen bu baax man la Françoise Ndiabassa Nango nekk présidente coopérative des femmes commune communales. waa dëgg la te def nañ fi formation 4 jours ñu formé 30 femmes te lépp ku ko waral mu rbds coordonnatrice bi nag tudd madame Diop mu ñu nekk suñuy ay partenaire ci loolu nag boobu ba léegi bu ñu digalee formation yàlla def na tey macha allah mottali nañ ko mottali nañ ko dañ ko commencé le 26 ba le 29 tey mu nekk jour bi nga xam ne mooy euh, bu ñu koy tëj wax dëgg si yàlla dañ si kontaan bu baax a baax a baax ndax formé nañ trente femmes néew na ci commune bi waaye bëri na. parce que 30 femmes yi bu ñu duggee ci zone yi parce que zone bu nekk mu ngi fi bu ñu duggee ci zone am na yeneen groupement yoo xam ne ñu ngi boot plus de 500 femmes am na ñu yor 100 am na yor 150 ñu ngi toog di xaar bu ñu ñëwee dañ leen di formé waat kon formé ñaar ba ñetti groupement rek ci zone formé nga lu bëre waxuma laak commune Diama bi nga xam ne li mu poraale si ay zone dafa bari sax parce que am na cinq yu officiel ak sept yoo xam ne ñi ngi ñi ngi koy mu ñaar yi nga xam ñi ngi ko war a mottali pour mu officiel kon commune bi nekk na commune bu yaatu kon trente femmes yooyu dañuy bëgg rek lépp lu ñu fi jàng RBTS RBTDS gungee leen ci loolu ñu wéyale ko ba nga xam ne seen morom yëpp daañu mën a tas li ñu jàngali bu gën a yaatu ci commune bi bi nga xam ne partenaire bi bu fi ñëwaatee dina am satisfaction bu baax a baax a baax yàlla mën na yàlla na ko yàlla def. waa dëgg la bi ñu defee formation def nañ fi 4 jours def na monsieur le maire mu ngi koy rafetlu kontaan si lool empêchement am na ko waaye xelam ak xalaat tamit mu ngi ci sunu programme bi ndax mu ngi remercier bu baax partenaire bi parce que tey fi mu waroon taxawee partenaire bi ñoo taxawal ko feesal ka fa dell kon sant na ko gërëm na ko bu baax na kontaan na si loolu njabootam la jàppale mu kon bu ko bu jàppale njabootam rek moom la jàppale kon monsieur le maire mu kontaan di sant bu gërëm bu baax partenaire